jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu fi daan nuyoo tey nag ñoo ngi fii ci Parcelles Assainies ci open press ki nga xamante ni mooy Franc ñoo ngi fii ci terrain Senelec seet si ko fi moom Franc ak ay mbokkam mooy ànd ak ay xale waa Parcelles yi di Go Sock ak yeneen xale yi nga xamante ni ñoo nekk Parcelles mbooloo wala boog ñoo nekk Jàmbaar Wrestling Academy tey nag ñu bëgg leen fi dëktal li nga xamante ni nii mooy open press Franc lépp loo xamante ni xew na fi wala ambiance boo xamante ni tukkee na fi dinañ ko fi mbokk yi ñu fàttali leen samedi la war ki nga xamante ni nii mooy euh, Tyson 2 moom la Franc dajal waaye tey mbokk yi lépp loo xamante ni am na fi bokk ci ambiance ah lépp loo xamante ni nekk na muy culture dina ko aada xale njaago bi nag moo ayee njaago bi la ñu wax mbaam dafi am lépp dafi am ma ànd ak kàggu ñu jottali lépp li nga xamante ne am na fi gars yi mbokk yi la gola. Jaago la ñu toogal mooy Yaram Gueye Yaram Gueye numéro un xanaa ñu bàyyi mu nuyoo mu fàttali tuuti parcours am ndax mbër la boo xamante ni nii képp ku suivre làmb bàyyi ngoo ko xel ñu bàyyi ko mu nuyoo tuuti ñu weel waxtaan wi ak lan moo ko fi lan moo fi lan moo fi teewaayam fii per nuyu naa maa ngi lay ziar maa ngi lay fay bu baax fii la ma doon sa teewaay fii tey waa tey samay rakk ñoo xewle ñu jàpp ma teg ma fu ma neex ma leen di gunge depuis ba ñu commencé ba léegi amaana maa ngi seen wet te du musa ma fàttali mbokk yu tuuti ndax yaa ngay sa combat bu mujj yow kan la woon. man ak Naar Touré ñoo mujjee bëree. ñaata combat nga def. man bëree naa la war a mat seize combat. yan nga ma ci mën a limal ñoo xamante ni nii boo limee gars yi dañ leen ci ñi nga jot a bëreel. bëree naa ak Baye Mandione. Baye Mandione moo a daanoon ak Tampon Ndaw bëree nañu. bëri na ak assurance bëri na ay combat de Gora Fall bëri nañ bëri bëri. Gora Fall bëri nañ. Naar daal nga mujjee bëri. Naar tax nga bàyyi la am. loo gis tamit day am app. xëy na app ba mat rek ma bàyyi. mais bàyyi nga mais dafa mel ni bàyyi woo yaa xale yi dafa mel ni ba léegi yéenay ànd. waaw ndax ba may def ah làmb amoon naa métier xam naa ne métier bi mën naa ci dem. ma dem ci métier bi mais lu tax ma bàyyi làmb ndax samay rakk ci lañ nekk te man tamit mbër laa samay at jeexagul waaw loolu moo tax toujours man damay jàpp ne mbër laa rek war a entraîner di entraîner. mais ngeen am bés bu mag muy samedi le 19 Franc di ci bëre euh, Garga 2 di ci bëre ngeen am ñaari xale yoo xamante ni espoir parcelle lañu mais xale yi ñuy dajanteel euh, ay ndaanaan lañ ci wàllu làmb comme ñoom naka ngeen leen di yabee ak naka la ñu waajee. dañ leen di ñaax rek garga bëri na ku nekk franc la même chose bëri na lu ne dañ leen di ñaax rek dañ leen di ñaax rek yàlla moo am ndam yàlla na leen yàlla defal ndam loolu rek lañ leen di ñaanal. mais ñu gis seen ñaari boo yëpp ay bërëkat lañu mais na ñu dajal ñëpp xeex moom kenn du leen ci woo est-ce que waaj ngeen loolu. waaw même xeex moom ak bëre la ñu wax bëre dóor bu fekkee da ngay dem bëre bàyyi dóor bi. kon sóoraale woo lépp bu fekkee da ngaa yóbbu bëree tamit bàyyi xeex sóoraale ñaar yëpp ngay yóbbaale te te duñu ay mbër yu ñu war a duma ci làmb tamit kenn warul mun def loolu. maama maama maama maama Lamine. garga dëgg naka lañ war a bëree ak ak ak ak ak ak maama garga même bu taxawee mu liir jeu rek ci xel expérience am booy bu waru ko mën a dóor. ci làmb rek nu mu. Maama Lamine la fekk da lay dugg. mu war ko mun dóor ci garga bu fekkee ni ndaanaan bi ñuy wax mu ngi ci moom booy bu war ko mun a dóor ku bu koy fekk foofu ndax man xam naa nit ku nekk tamit lu muy def dañuy wax te yàlla tax xam na expérience xam na làmb xam na fu làmb di doxee tamit. su ma ñëwee ci ci ci franc franc bëri na euh, euh, kii boog Tyson moo mujj daan garga 2 franc ñëw jël ko maanaam da koy fournir. Franc musul am mbër moo xamante ne danaan xeexkat la comme noonu bu ñoo am Tyson 2 naka la waa a waaje non xam nga Tyson 2 Franc Garga Boy Bale Mama Lamine ay mbër lañ ñoom ñu war a bëri rek di bëree mais Franc moom dama lay wax mbetteel la ci làmb saa yu ñëwee dina def loo xamante ni dina ne noonu lii war a ko woon yaakaaruñ ko woon même làmb simple noonu lay demee c'est parce que am na loo xamante ni xëy na yàlla moo koy defal doomu aadama chaque jour bu defee dara day yokku waaye du wàññeeku moom dafay bokk ci loolu noonu xam ndax li mu doon ñëw gëm ko forcer ko nit ñi ne lii la war a doon xam nga li ma la ñu ne ñooñu bokkuñu ci woon moom mu ñëw boole ci ñooñu. mais est-ce que est-ce que dina mën a forcer Tyson 2. mais Franc bu mënul forcer Tyson 2 mu bàyyi làmb bu mënul jàpp Tyson 2 forcer ko daan ko dem ñibbi non na bàyyi. lan ngay wax waa Parcelles ndax bés bi jëp na ci wàllu mobilisation. na ñëpp ñëw topp ci ginnaaw xale yi rek. ñu gunge leen ndax parcelle la ñu am ñoomit it génn ñu parcelle chaque jour fi lañ nekk comprendre nga ñu ngi woo ñëpp nag danga ba 26 fajaa amoo ñëpp ñu ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw ci làmb ji supporter booy yi loolu rek lañ leen di ñaanal. kontaan naa ci. jaayew rek ñoo far. lépp gàllankoor la. démb ngeen def open press bu neex waa parcelle yëpp génn. naka na seen open presse démb lan ngeen ci jàngee. waaw wax dëgg la asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu ku nekk si turam satam waaw démb moom vraiment parcelle euh, ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ te noonu lañ ko bëggee woon kontaan nañ lool ci parcelle A ba set waaw wax dëgg yàlla dem moom kontaan nañ loolu la waaye dañu bëgg bu samedi ñu gën a kontaan incha allah bëgg. mais lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo ngi naan bu Mama Lamine jàppee Garga 2 da ngay wax ñooñu. waaw ñooñu xañ na euh, lambu lambu moo tërëte rek waaye Garga 2 wax dëgg yàlla wootoo na bëre Mama Lamine sax. wootoo na bëre Mama Lamine bu bu fekkoon dafa daanoon tey seen deux lu bëre Mama Lamine lu mu bëre lu të deuxième daan deuxième ko mu toog ñeenti at bëriwul tey fo mu jël ko pour bëree waaye man gëm naa ne tey Garga 2 du moroom Mama Lamine te bu soobee dina leer incha allah. yéen a ngi waaj xeex. waaw waaj nañu waaw ñun pare nañ pare nañ bu yàgg yàgg pare bu yàgg. mbokk yi maa ngi fii ak si Gabon xanaa ñu bàyyi ko ñu waxtaan ndax bokk na ci ñi nga xamante ni mooyoo xale yi di leen defal physique ak boxe waaw ko si Gabon nuyu naa maa ngi lay ziar waa Wassare Wassare Lamb maa ngi lay bu baax. samedi samedi dafa mel ni seen samedi la leen ndax am ngeen ci ñaari xale yoo xamante ni dañ ciy laale naka ngeen leen waajalee. waaw ñu ngi koy waajal ak seet euh, waa équipe bi ànd si Papa Sow donc ànd si waa parcelle yëpp donc euh, di ñaanal Franc ak Garga yàlla may leen ndam sedd guy quoi. waaw mais mais mais naka ngeen waaje parce que nekk nañ ay xale yoo xamante ni dañuy dajeeg ñoom ñoo xaw xaw tuut ci relance et puis ay xeexkat lañu naka ngeen leen waajalee. ñoom ñaar ñëpp mën nañu xeex muy franc muy garga 2 donc euh, su laajee xeex nañ xeex su laajee bëree dinañ bëree. mais ñoom dañ leen gën a xam ci bëree te seen adversaire dañ leen gën a ràññee ci xeex bu bëree bare bëri est que yéen waaj ngeen lool. mën na leen nax nag. parce que da ngay gis ne nit ki mu ngi mu ngi dem di di def lutte ñu fa ne mënul xeex waaw mais mais daal ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey daal ñu ngi liggéey. yaakaar nga ne Franc dina jàkkaarloog euh, Tyson 2 xeex ak moom. waaw su ko woowee si xeex dina xeex su su ko su woowee si bëre dina bëre waaw di ko di ko ñaanal jàmm donc Tyson 2 champion la donc euh, vraiment euh, ay xale lañu rek ah mais vraiment di ñaanal sama sama poulain donc muy Garga 2 at Franc yàlla may leen ndam bu sedd guy quoi. état de forme bi fan la toll. état de forme bi ah mais gis ngeen mu ngi dem di compétir ah donc mu ngi dem si àll bi di di mbapat mu ngi dem si àll bi di liggéey donc euh, vraiment xel daal na quoi waaw. Ah. kontaan naa ci. waaw ah, mais maa ngi gën a kontaan yàlla na yàlla defal jàmm. Euh, maa ngi fii ak Balla juuf euh, Balla nuyu naa la. waaw fay naa la fay wasaare lamb. tey naka ngeen waajee. waaw comme niñ ko waxee démb rek. donc yàlla may nañu temps vraiment ñu am temps liggéey xale yi ba pare ñoom ñu nangu ko jox ñu seen bopp vraiment ñu liggéey liggéey bu mucc ayib fu mu ne nii nag li ci des mooy réglage yi mooy open press jëm ci jour ba fu ne nii moom wax ji du bëri ndax si nañ ci jour bi ba pare li ñuy def rek mooy ñaanal xale yi ñaanal leen bu dee liggéey rek mooy may ndam bu dee joxe sa bopp rek mooy maye ndam ñoom def nañ ko kon ñun suñu xel dina dal mais comme ay doomu jullit lañu dañuy ñaan yàlla suñu borom yàlla yóbbu leen ci bés bi ñoom ak seen adversaire ñu ñëw ci jàmm yàlla may suñuy poulain ndam bi jaaxi na bil Moustapha ndax liggéey nañu ndax mérité nañ ko te wax dëgg yàlla suñu xel dal na si ñoom mais naka ngeen leen waajalee parce que dañoo gis ne ay adversaires yi ñu am bokkul ak niñ daan bëreel mën naa ne Garga sax jot naa jaar ci kenn ci ndax jot na bërek ak Tyson 2 mais ñu gis ne adversaire yi ñu am yëpp xeex duñ koo gën a mëne wala boo gën nañ leen ci ràññee est-ce que waajee ngeen noonu waaw loolu xam nga boo amee combat ñu ne bëre dóor nga signé contrat wu bëre dóor donc nga waajal ci bëre at dóor donc waajal nañ ci physique waajal ci mental waajal ci xeex bu mat waajal bëre bu doy tënk ko nag def ko benn application def ko ci clé USB téye ko bu ñu àggee ba làmba ja nag jox ko booy bu ñu bësee rek application yi ubbi ñu ñibbi. mais loolu yomb na de. waaw noonu la demee àdduna toujours sa xel dafa war a dal ci lépp loo mën a nekk te si fii ñu taxaw nii suñu xel dafa dal yàlla nag moo xam lii xew suba mais ñun suñu xel dal na di ñaanal Franc yàlla may ko ndam ñaanal Garga 2 yàlla may leen ndam bi jaahi nabil Mustafa kon fi mu toll nii bi daal nice. macha allah ku xam Franc xam ni compétiteur la année bi yow day compétir kon moom li ñuy liggéey ak moom mooy ay réglage yi nga xam ne moom la war a def ci làmb ji te yàlla dimbali nangu na ko metti woon na trop mais mu nangu ko di ñaan yàlla nag loolu mu nangu mu wuyu ko si biir géew bi. mais fan nga toll dama la doon dégg nga doon wax naan da ngay dellu si ci biir làmb dañ cee génn wala yaa ci ba waaw am un moment wax dëgg yàlla booy yëpp motivé woon nañ ma ñoom Modou ñoom Papa ñoom Franc Goro ñëpp ñoom motivé woon nañ ma pour ma ñëwaat mais nit da ngay am kilifa eh, wax dëgg yàlla ba ma waxtaanee samay kilifa wax dëgg yàlla ñu ne ma xamal ma ni làmb ji diis na si ñoom ma samay kilifa fas yéene jël sama carrière teg ko nale mais nag diggu nga samay rak lépp li nga xam ne mooy yéene at xam-xam bi ma am ci làmb mu tuut mu néew am naa xolu yéene leen ko accompagner leen ndax c'est des très grands champions wax dëgg yàlla soxla nañ ku mel ni man man tamit yéene naa leen sama bopp mu doon benn échange boo xam ne wax dëgg yàlla tey jur na benn benn cohésion sociale boo xam ne tey ci biir parcelle tey mënuñu rek lu dul ñaan yàlla may leen ndam ndax ndam rek moo mën a feeñal liggéey boobu tey nag ñu leen di ñaanal yàlla may leen ndam gis am na am na boo xamante ni nii gëjoon na am bi parcelle mais depuis bi jàmbaaru suñu académie ñëwee ba léegi euh, booloo boobu dafa gën a am doole naka ngeen ko liggéeyee travaillé ko ba déggoo boobu nga xamante ni jafe woon na fi am fi naka ngeen ko liggéeyee. waaw jàmbaar wrestling académie mooy boo gisee ki ko jiite mooy Papa saw amul sens interdit ñëpp ay xaritam lañ mu nekk mbër mu yaru. mbër moo xam ne nangul na yeneen moromi mbërëm nangul na ay rakam ba pare àndandoo parce que dañ ne say buñ ko takkee day gën a dëgër mais buñ ko takkul day tas te say bu tas yàlla ñu ci yàlla musal boo tax ba jàmbaar wrestling académie ñëwee dañoo gën a takkaat say bi parce que nee donte sax fekkoon nañ parcelle booloo mais dañ ko gën a ñëw a consolider ko gën ko dëgëral mbëri dëkk parcelle xam ne ñoom ñëpp ñoo dëkk parcelle ñoo bokk ndey ak tey ku nekk mën nga jàppale sa morom ci ay mu jëriñ ko loolu mooy un plus donc un plus boobu nag la ñuy mu doon deux plus fexe mu doon trois plus donc ñun loolu mooy suñu rôle mooy rassembler ba pare li ñu rassembler togg ko mu doon benn affaire boo xam ne tey dina jëriñ képp ku dëkk parcelle kontaan nañ ci yow jërëjëf félicitations waaw merci ñoo ko bokk affaire mooy loolu yaa am nga xam ay ndaw lañ xam nga euh, ñu gis la nga bëgg manière daan ki nga xamante ni mooy Ndandi loolu naka nga ko waajee loolu lépp ci wàccaay rek ci préparation bu jaar yoon rek parce fu naan pour man daan naa ni Fall du ndam ci man man ni ma war daan ñu ngi ci kanam ñi ma daan muy ndam mi ngi ci kanam. daan ni Fall daan nga ko génn nga ci moom ña ñoo nekk sa kanam. waa bëri nañ sox gi sama kanam dañoo ñu bëri man lu métti laa wute wutuma lu yomb. nga daan nga daan samedi sox daan dimanche nga naan ne la jox sox. te moom bëriwul. làmb loolu fu bëri am. koo bëgg a bëreloo moo bëgg a bëreloo foog mu am moom foog bëgg a feeñal quoi li nëbbu ci moom laa bëgg a feeñal. lan nga bëgg a feeñal lu ci moom. ba def ci ah. ko def ci code. Euh, sa sa sa sa mbokk mag sa lépp di di di nag lan moo sa teewaay tey. waaw Franc di sama waay sama doom lay ñu ñoo ñoo préparé ndoo ñu doon moom ak Garga 2 di ko ñaan ndam koo gis xam ne ni mu mel nii saa yi macha allah di ko si borom dafal ko cat may ko ndam ci jour bi incha allah moo gargaare yëpp waaw. ñoo lay jaajëfal. ok maa ngi lay jaajëfal yëpp jaajëf. waaye fay ñu ngi lay fay jàmbaar. ci loone sant borom Touba. tey dafa mel da ngeen ñëw gunge seen rak. waaw te dañ ñëw gunge suñu rak mu am yar am teggin rek moo tax ñu ñëw ñëpp bàyyi seen yite ñoom Nicolas maam fa Ousa 2 ndax yaram ak comportement am bu garga de bëggoon naa ñëw mais dama demoon Touba mu métti lu ma di ñaanal garga lépp benn la yàlla na ko yàlla may ndam mais ñu nekk ay xale yoo xam te ay ndaanaan lañ mais di daje ay xeexkat te ñoom ñu gën leen a mee ci bëre lan nga leen di wax waa loolu duñ leen wax dara ndax looloo tax mu gën a neex sax ndax xale bu demee bay bëre mag day kontaan Franc di xale bu ndaw musul tox musul naan barke alxuraanu karim Franc xale bu ndaw musul tox musul naan billaahi wallaahi wa taala ñu yar ko fii am comportement am du caaxaan fu 10 heures jotee tëdd na di ko ñaanal daal Franc di mbër moo te dina xam ne comme mbër ya amoon yëpp du bokkul ak man maa la loolu. mais Franc adversaire yam daan am ak Tyson 2 duñu benn de. non déggum non bu waxati lool. non yamuñu non bu waxati lool non Tyson 2 mbër. tey Franc musul am koo xamante day xeex comme Tyson 2. dëgg la làmb day xeex moom mën ngaa ñëw doo xeex mën ngaa ñëw bañ a xeex. mais combat ak moom fa Franc. Tyson 2 bu xeexee njël bi day gën a gaaw. waaw li nga wax. Tyson 2 bu xeexee njël bi day gën a gaaw barke alxuraanu karim dafa mbër yoo xam bu ñu fermer seen garde di ñëw comme Franc day dañuy naqaree te Franc xale bu ndaw la billaay wallaay amul bu ëpp ko compétir léegi Franc balaa ngaa bëreegul de billaay wallaay wa taala mais Franc Tyson 2 nag sonal na trop. non wéy dëgg la làmb moo de dugg na fi duggaat mais tey duggam bi dootu fi duggaat man maa la wax am nga yaakaar. barke Rasul pare na parcelle. Tyson 2 pare na parcelle. combat bi lay pare parcelle. Eumeu Sène na de. non Eumeu Sène bu ko indee ma indi ko du mujj fenn Eumeu Sène ko indee loolu amul njariñ doo déggoo li ma la ba may bëreeg dinaa laasoon ma Pikine am déggoo li ma ñoo ko indi woon gàcce la ñu ñibbee kon loolu amul njariñ ba ngay bëreeg Jaguar ba may bëreeg Jaguar ñoo ko indi woon gàcce la ñu kon indi nit taxul bu ñu tëjee jee bi ñoom fee la ñuy dem taxaw waaw Franc fullaam ak jomam billahi yow xam nga ni njaago du ragal waaw njaago du du ragal njaago bu lekk mbaam bu suuf billahi wallahi yow xam nga ni njaago du ragal incha allahu rabbi di ko ñaanal comportement dafa rafet yàlla may ko ndam waaw mi ngi noonu barke dafa mel dafa xaw a wàññi. non ba mu juddoo ba léegi dafa am état de forme bokkul booy compétir di jël ay bokkul ay drapeau yi léegi dafa yomb benn mbër ngay tëggal teen ñaari combat mu jël drapeau yu mais Franc day bëri lu mat ay sept personnes huit personnes soo dem final ñun boo gisee suñu mbapat métti noonu la woon mais boole ñaani tëggal leen drapeau ñu dem loolu amul njariñ Franc dafa am compétir yaram bi dafa mais dama la gis état de forme bi nga am da nga bàyyi léegi wala nu mu noonu. non bàyyi ma promoteur yi xam nga daf Sénégal promoteur dañu bëri barkeel promoteur yi naa dañu bëri man nag woowuma ci kenn man pare naa da nga am ay màgget a ñu tëggal leen te ñoom ak junni yoon mag la dëggee de ñoom maas dañ ma war a jox combat ku ma ci tëggalu man maa ngi jàpp sama ñàmbur. kon fi mu toll ma billahi relevé ma sama licence fu ma dem dama koy relever muy paate muy fi mu toll limal ma sa ñetti adversaire yoo xamante ni ay adversaire potentiel leen ku tëggoon combat bi dina jaar ñoo xam ne mën naa bëre ñoom bëri na ci yow tey boo xoolee Tidiane Faye bu saar ci boppam dafa daan sokowaar ma daan ko mën nañu bëre waaw mais bu xamee ñun ñun jël neuf combats wala quatre-vingts combats loolu amul problème mais ama seen yor na sax Balla Gaye ñeenti combats neuf combats bi da koy bëre am doo ñooñu laa bëgg ak maa la séance lu jaadu parce ah, non dëgg la dafa jaar mais nit ñi xam nga promoteur yi ñooy ko am déet yu am déet man dañu dañuy bëgg neexal wala ku mar man du ma mar kenn du ma neexal kenn fii mbir mi yàllaa fi nekk ak yonent bi fuñ ma tëgalul yàllaa ngi fi yonent bi sëñ Tuubaa jeex na tax man du neexal promoteur mais xale laa xam nañu entraînement ñëwaat naa ci làmb te ku ne dama la daan ci làmb barke alxuraan karim pare naa pour bëre ñëpp barke rasulullaay billahi wallahi taala kontaan nañ ci amul benn problème ñu lay sant di ñaanal sa chaîne bi yàlla dimbali ko ndax sa compote rafet na yàlla bàyyi leen fi daal yéen a xam daal ay xale lañu fekk am xale bu ndaw la maa bàyyiwul làmb barke ñëwaat naa ci làmb barke rasul laay dama bëgg ñëpp yëg ko waaw sëñ moo di ñaanal maa ngi koy di ko gërëm di ko sant ndax sama làmb yëpp moo ko tëgg loolu dafa ñaaw sa dama lay seet suñu yaatal incha maa ko jóg yóbbu stade Franc sama ma defar la bu may nekk parcelle mbooloo ñu bari xamuñu maa ko njëkk toogal chaise fekk mu nekk parcelle mbooloo jóge parcelle mbooloo dem si Zos jóge si Zos euh, dem fekkee ma si boole dóor dóoraat dégg nga kon nag euh, Franc xam naa ko bu baax quatre ans laa ko entraîné plus de quatre ans léegi nii yàlla defaat na mu nekkaat samay loxo ma koy toppatoo di ko tàggat di ko jox di ko liggéey boo xoolee lu mu mel ni dafa liggéey dafa liggéey te combat bi euh, la ma la rek moom moo si nekk ñun lañ ko liggéey boo koy bu ko defee dañu am ndam lu luñ ko loo ñun membre staff bi membre staff jàmbaar lañ ko liggéey loo bu demee dañu am ndam leer na ma si kàttan suñu borom parce que dañ ko teg si yoon parce que Balla Diouf a ngi fa kon li ma la wax Balla Diouf a ngi fa Souka ngi fa kon nag maa ngi fa laay ñombare ngi fa laay ñomba actuellement noonu ne nekk gu fi mais dafa dafa voyagé mais ñun ñoo ko préparé parce que laay ñomba nekku fi mais ñun ñoo ko préparé mais mais mais ñu ngi déggoo et puis non seulement Franc boobu doole la si Franc ku si mel ni Goro Sow ku si mel ni Papa Sow ku si mel ni Modou Lo ku si mel ni euh, Dame Sène ku si mel ni Dame Sène y' a beaucoup de champions yoo xamante ni ñëw nañu jàppale suñu combat bi kon ñun amuñu dara lu ñu rek si combat bi lu dul ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam maa kontaan si yow sama doomu ndey nga mais démb nag dama la mere noo démb dama la mere gar mi noo démb dama mere waaw non jégal naa la di ñaanal yàlla Garga Mbossé yàlla may ko ndam parce sama pile sama point la waaw garga sama poulain la maa ko ñaan yàlla yàlla may ko ndam parce que sama sama poulain la waaw ba samedi incha allah rabbi nga ñaanal ma am ndam nag ah, ñaanal ma am ndam nag suñu ay raq lañu ay booy yar lañu booy nangoo liggéey lañu ba tax ne daal ñu leen seen ginnaaw di leen rek di ñaanal aussi yàlla defal leen ndam quoi allah am nga combat sa digganteeg Siteu boobu ba léegi yéen a ngi xaar fan la ñu toll ak Pape Abdou Fall fan ngeen toll ak moom. waaw d' abord mi ngi progressé mais d' ñu nekk ci lii ba lay jeex incha allah ñëw ci ma seet si la rek. waaw après ñu xool incha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 moo la ngi noonu di wax ak coach Lato laay Pythagore maa ngi seen ki nga xamante ni mooy Papa Sow waa Paasa la noonu moo doon nga gisaafoonte ak nit ñi tey làmb làmb noonu ànd naag Franc Modou Lo la Gora Sock nee nañ leen dëggal Fass loolu Papa Sow ko moom mbokk yi ana Papa Sow Modou Modou nee na gaay tàccu Général noonu ci digg bi Modou Lo ngi à gauche Papa Sow à yaa ngi gis Gora Sock waaw waaw lii Papa Sow a ngi noonu waaw loolu mu doon mbokk yi gis ngeen loolu na leen fi andiloon fi nga xamante ni mooy Parcelles terrain Senelec ñëwoon fi set fi open press franc waaye mbokk yi gis ngeen ambiance am na fi franc tuus na ànd na ay mbokkam gis nañ fi ki nga xamante ni mooy Modou Lo Papa Sow waa Parcelles gépp génn nañ waaye mbokk yi ñëw nañ taxaw def open press bi ba noppi tuus nañu def nañ lépp franc waa taxaw wax ak askan wi franc waa taxaw wax ak presse bi mais mbokk yi ñu jékki-jékki gis génn dem yoonam la taxaw ñu déplacé wu ñëw la taxoon ñu bëggoon gis Franc la taxoon ñenn ñi nga xam ne dañuy xaar Franc samedi xaaj xool xool naka la waaje ak naka lay waajalee bés bi loolu lépp mbokk yi jotuñu cee wax ak moom ndax Franc jékki na jékki dem raison yi tax mu dem nag ñun xamuñu ko xëy na peut-être moom raison yi tax mu dem moom moo ko xam mais xaar nañ ko ba sonn gis ngeen heure bi ñu fi toog nii gisuñu Franc dégguñu ko ñun yéen ñi nga xamante nag yéen ñu ko ci Wassare Lamb ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax ndax su du suñ coobare bu doon suñ coobare dina taxaw wax ak yéen ngeen dégg mbokk yi waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam di leen jégalu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb jaa ngeen jëf